Mbaye Kouthia dépassé na ma may yëg ci kaw ñu war a wàcc suuf terrain ñu taxaw kii ci escalier yi léegi comme man gis naa góoñi di ñëw rek rek mu kii dem attaque bu dul sax man naroon naa koo dóor moom bu yàgg far Mbaye Kouthia far yàlla ñuy kii rek mbay daan may kii rek ma dóor ko arrêt rek sonk ko ñu përee ma nag ñu gis bërëng bërëng bërëng bërëng <laughs> gis nga ñun bi ñu wàcc suuf kenn kenn arrangé wu ñoo arrangé suñu bopp man avant may naan ni c'est dañ koy téye yàggul <laughs> asalaamaaleykum internaute Senego TV ak Kawtef ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen di dalal ci seen émission bu bees tàq nag ñu daal di ko tuddee fas ak facette. fas ak Fassel nag boo leen ko déggee mooy li ngeen di gis ci seeni invité yi nga xam ne moom la ñuy dalal fii ñu won leen beneen li ngeen xam ne dangeen koy njoxtu wala sa xalaatu leen ko ci boobule invité moom la ñuy fësal euh, di ko wone tey nag troisième numéro bi ñu ñëw seet si ki nga xam ne mooy Selbé borom Karma moom kenn du ko présenté dama koy bàyyi mu nuyoog internetu Senego TV ak Kawtef Selbé ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sama xarit bi. maa ngi nuyu waa ko kawteef di leen jaar di jox seen wàccuwaay am na solo comme ni ngeen ko gisee rek émission bi fas ak facette trois pàcc rek lay doon ci premier temps dinañ wax ak suñu invité parcours am cursus am ak aussi profession wam deuxième partie bi ñu ñëw ci confidence ñëw ci dernière partie bi daal di ko dikkee li nga xam ni mooy ay quiz question réponse euh, ñun ak suñu invité ci 30 minutes di ngeen xam bu baax a baax ki ñu dalal kii mooy borom karma selbe ñu nuyu ko mu delloo ñu ko wante it dañuy ñëw Euh, ci li nga xam ne mooy début yom ndaxte ñu ci bari ci série Karma lañ ko xamee wante ñàkkul jaana fu baree bari ñu bàyyi ko rek tungu ne du teew ñuy nataal Selbé nga revenir ñu un petit peu sa parcours ndaxte ñu ci bari ci Karma lañ la xamee. dëgg la <laughs> sama parcours moom damay sawar lool ci question boobu ndax man sama parcours dafa metti lool lool lool lool trop sax mais nag li ñaan boo xaarul euh, lu naqari buy neex du la fekk yàlla dogal na ni boobaak léegi maa ngi am courage nekk ci ba jusqu'à présent nii mu nekk parcours boo xamante ni si sama wàllum aar daal métti woon na lool sama côté famille samay côté famille parce que dañu nekk ay dañu nekk ay ndaw am lu ñu bëgg am lu ñu bëgg euh, bëgg benn affaire parce que des fois aar boo ci dee dugg rek dañuy jàpp ne da ngaa bëgg a bon milieu aar dafa xaw a métti ma koy ma koy ma ko doon dund nag mu métti lool mu métti woon loolu ci man ndax amour bu ma bëgg la dama ko bëgg ma ko bëgg quoi ma nekk ci nekk ci nekk ci may dem ay répétition sama yaay di ma dóor sama mag di ma xas ñu may wax lu nekk suñu bundu kër fanaan naa fee ba tàyyi ndax aar fanaan naa fa bataay dem répétition ñëw ñu ne ma doo dugg tëj buntu kër gi ma toog ci mbedd bi kon sama parcours dafa xaw a métti trop. Mhm. à part Karma nga jaar ndaxte dafa mel ni jaar nga ci abu bi à part Karma Karma moo mujj man jamonoy kaset 400 loolu loolu loolu est-ce que nekkul ay mille 2010 2010 2015 je pense côté yooyu. kaset 400 lañ daan jaay. 400 francs lañ daan jaayee kaset di ko jaay réseau man yi 2000 ñun dañ man dama daan jóge fii ba Touba tourné sama kaset kenn du fay dara ma lubtu ko man kii di jaay di versé borom label bi. di jóge fii di dem Touba Tiwaawan Thiès fu nekk teg naa fa sama tànk bi di war di jaay kaset su ma jaayee kaset 400 dem réseau man jaay leen 2000 autoroute bii bu njëkk bi waxuma autoroute bii bu bees bii de bu njëkk ba. sama tànk bi miin na ko lool <laughs> bi miin na autoroute boobu damay daw tee kaset yi man maa nekk ni maa fa ne maa zéeli ay waay jëndal nga jënd su ma paree ñëw jox sama matériel jox sama euh, kii bi borom label bi su loolu paasee euh, suñu koñ borom réseau bi damay obligé man dem sàcc sama yaay 2000 jëndal ko moom kaset may ko pour mu teg suñu waa ko dama suñu waa koñ dama seetaan léegi su ma demee ci moom ne ko mu teg ko su ko teg ma damay wëtt koñ bi fu nekk may fëgg naa ne yéen ngi seetaan kii jàpp leen kii Modou Canal seetaan ngeen Modou Canal ñu naan ma seetaan nañ ma laay théâtre bu neex moo fa nekk fekk na man maay daw damaa bëgg ñu seetaan ma te kenn seetaanu mu woon <laughs> dégg ma jóge fa nag neysaan ma nekk daaray euh, daaray yaakaar bu géejawaay asag naa jóge fa nekk at ko bu géejawaay maa ngi nuyu Cheikh Mbacke di ko remercier di ko jox wàcc wàccuwaayam ma nekk fa nag ñu liggéey ci ma liggéey bu rafet ah Cheikh Mbacke maa ngi lay nuyu baax yaak ar yéen yéen ñi nekk arko géej ay ñëpp man nekk fa di fa liggéey liggéey boo xamante nii maanaam li ma gis sur scène moo ëpp li ma feeñ man li ma gis sur moo ëpp li ma feeñ ma nekk ci nag muy metti muy muñ muy metti muy muñ muy metti muy muñ ba ni ma bokkee ci Abu Bilal ba ni ma Cheikh Mbacke jëlee daal may yóbbu Abu Bilal boole maag ndeyloo si euh, kii euh, tontu Aline borom pique-nique production ñu jëloon ma ma doon joué Abou Bilal waaw. ma jóge fa nekk ci Kouthia Show di joué rôle Marème Faye Sall comprendre nga. ma Marème Faye dama ko doon toppandoo rek dama ko doon toppandoo ndax Kouthia xam na ne man facette yëpp laa ne macha allah man artiste laa boo xamante ni euh, dama polyvalent laa polyvalent xoolal peut mën naa ne artiste yëpp ko def. mais complexe bi moo fi nekk am na ñoo xam dañuy rus a def lii dañuy rus a def lii dañuy rus a def lii man nag dama nekk artiste boo xam ne rusuma def dara ci sama wàllum art dama bëgg art moo tax rusuma def dara xam la laa rus a def lu ñaaw ci ar ñu fekk ma ne nday amee moo def lii mais à part sama liggéey rusuma ci def dara te lépp lu mu laaj dama ko koy jox Kouthia dama daan daanu ba nit ñi jàpp ni est-ce que kii nekku day daanu naturel weeru koor dama doon daanu ba yéen ñoon di waxtaan noppi leen dañuy kii interview salaamaaleykum waxtaan bi arrêté leen ko ok dama doon daanu ba nit ñi di yaakaar ni <laughs> ba nit ñi di yaakaar ni sama daanu bi ma doon daanu dëgg la man sama góom yi am sama tànk yëpp taas yi ma am yëpp ay sur maanaam seena ma ko yóbbu seen su ma nekkee sur seen mën naa def plus que pour bëgg ki ki may seetaan toog kontaan après mën naa ci gaañu mais duma ko yëg su ma paree li nga li nga doon def naa nga ma xool sama yaram dagg wala petit ba ci Kouthia Show weeru koor gi noonu laa daan tourné noonu su ma daan tourné dama daan joué rooru daanu ba ñu jàpp ni kii est-ce que kii amul ay rab mais su ma ci paree parce pare naa ci su ma duggee ci gaamu Marème Faye Sall ah danga naan kii moom rek laa nuróol parce que damay jël Marème Faye Sall ci boppam dugal ko sama bopp loolu lañ naan la personne ak personnage sénégalais yi nag dama bëgg tey ngeen xàmmee la personne ak personnage gis nga personne bi toog du personage bi nekk ci ci kii ci série Karma mais da ngay gis korom naa ma salbe defal ma lii defal ma bàyyi leen loolu gis loolu ku ma ci bàyyi toog loolu. comme lan defal ma la. ay salbe jooyal ma mais pourquoi may jooy noonu tamit ay jooyal sama gañi benn la. Ah, mais nag ci jooy boobu Karma bi euh, avant dernier épisode bi Selbé sa jooy boobu da nga ko programmé tamit daw ñëw forcé nit ñi xool leen ma programme wu ma ko sax gis nga man maanaam aar dama koo bëgg ba dama koo tarbiwu bëgg ko ba nga xamante ni lépp lu may fekk ci biir seen damay fekk ma répétition ak ay dañ daan wax ko caa ko yàq nday am da nga daan répété mosuñu répété man ak jibisee mosuñu répété chaque fois ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ñi ngi ci norme norme norme yi nga xam moom la sénégalais yi bëgg ci loolu la ñuy nekk parce que boo toogee tey salle bi ku nekk ngi koy xaar message bu génnee dafa war a jox plus ko gars yi lañ doon xaar ci moom moo tax may góorlu ci côté boobu di ñaaxaat sama bopp di ñaaxaat sama bopp. tey ñu bëri gën la ràññee ci série Karma Karma bi lan la la apporteel yow ci sa côté euh, liggéey ak sa côté aussi relation. sa jamantama imposé sa encouragé yaaba li ma laaj neex na ma lool. ndax dama sonn ci aar bi lool lool lool lool lool te mosuma see lekk dërëm ndeysaan xanaa ndeysaan may nuyu tontu Aliou Ndiaye borom Pikine production moo ma daan jox xaalis daan ma fay ndeysaan ma ciy for lu ma yóbbul sama yaay tey nag yàlla dogal ma nekk ci ma jóge ci Aline jóguma ci moom sax dama dem Pikine Marodi di fa maquillage ñu jël ma fa maquillé ma fay maquillé may maquillé Adja Séri koor gi man ak Mbaaco ñoo fa nekkoon di maquillé Pod et Marichou des fois moom mu nekk parce que Marisou man ma nekk Nafi noonu lañ doon def biir biir Mbarodi Mbarodi maquillage moom fa yóbbu mais du tourné mais ñoom dafa amoon fenn lu ñu doon tourné mu doon parrainage mooy loolu ñu doon def affaire vote yi noonu léegi ki doon tourné noonu caméraman bi kii réalisateur bi daal ne soxna si dooñ dimbali jàppal ñu benn séquence bii rek parce que gel bi artiste dañu ko xaar bi sonu kii te ñëwul mooy séquence bi mu doon daggee jaay soble fekk na kooku ne xanaa doo sénégalais mi ne ko man kay waalo waalo laa carte d'identité donc nan lañ ci ramassé nit ci ci kaw séquence boobu man sequence boobu mu ko tourné yàgg na may kon ne liggéey sama liggéey bii mbaroo di maquillage ma jékki-jékki Adja recommence Ndour woo ma mun ma dem dañoo capturer sa vidéo envoyé ñu ko ñu ne ñu ne ma damay tourné damay tourné carrément man nag ban vidéo mun ma ah, bi yaa ko tourné woon fii nii loolu moom ma dugal biir biir biir série carrément mais man à part yàgg naa bi Mbaro di leen liggéeyal. am nga ci dara ndaxte ni nga duggee nii biir Karma amul contrat daa mel ni. amul aussi loo xam ne wax nañ ko en tant que actrice damay laajte. su ma de man damay laajte damay laajte ba ma leer ndaxte da nga ne ci séquence su parrainage loolu moo la dugal. kaay na gis nga sel bi bàyyi sa histoire bi maa la ko ëpp bàyyi mu seet déedéet sosuma de. dang may déglu. danga ne amoo contrat danga may déedéet déedéet may déglu damaa la ne danga maa ne danga may man duma ma sosal kenn <laughs> nañ defante nànk rek amul soroxo soroxo amul soroxo soroxo hmm. eh, danga ne danga ne waa waaye kañ nga may bàyyi ma. da ne ci parrainage nga intégré li nga xam ne mooy Siri Karma kon tey est-ce que am na ay préalable ñu ne la Selbé dangay ngay jouer ci Siri Karma en même temps si tegal le contrat d'autant plus que wax nga ne video dañ la ko envoyé ne yaa ngi jouer ci Siri Karma. lii ana préalable man bi may bi may liggéey ci ñoom maquillage. dama mo non avant Karma bi bi may liggéey ci ñoom maquillage dama amoon contrat ma ñëw Karma bi ñu renouveler ma sama contrat ma validé. en tant que maquilleuse. mais maquilleuse bi nag dafa mujjee maanaam Karma bi da ko mujjee rey parce que aw moon temps di demaat di maquiller dama continuer si seen lancé bi nga xamante ni mooy contrat bi ma signé ak ñoom. première saison bi ma ci bokkee muy deuxième saison bi xam nga ci laa ñëwee ci Karma boobu soxla ñu ma woon lu bari ci séquence bi dañ ma soxla ay partenaires parce que dañ ñëwee woon comme Karma dafa bari ay tristesse ak yooyu nañ ma ci jël tuuti ma dugg ci génn far yàlla ma dugg génn Sénégalais bëgg ma ok bu baax laa ilaha illallah di ma ci gisee sama bopp ëpp na ni ma ci gisee sama bopp ëpp na tey jii nit ñu bëri jàpp am na ñoo xam ne jàpp ñu woon ni salbe maanaam artiste la sax am na ñoo xam ne dañu jàpp ne dañu gis Selbé nii rek nii nii nii mu ñëw ñu jël ko série Karma mu ñëw tourné fekk ne daf dafa rampe xam nga at laa def ci aar danga ma koy laaj wala. at nga def ci aar Selbé. def naa ci vingt ans ma def ci vingt ans deux mille vingt ans ak léegi ñaata kii la ñu ngi ci deux mille lan. deux mille vingt trois may doog a siiw. <laughs> may doog a siiw waaye du ma yëg succès de xam ne ndax du ma yëg succès damaa sonn su ma yëgee succès dañ may gaaw a bàyyi Sénégal bëgguñu loolu ku ma Selbé kaay photo ma mais karma moom dëgg yàlla sincèrement yóbbu na ma fu ne yow karma moo tax nga woo ma série karma moo tax nga woo ma bu doon série karma doo mës a woo pour la loolu bàyyi leen loolu. dëgg la parce que ma la woon. waaw mi noonu ah, léegi fii visibi visibilité. visibilité visibilité moo tax internet yi di ma woon naan ma dañoo bëgg wax ak man man loo damaa jaaxal ku nekk naan ma Selbé dañu bëgg interview ak yow dañu bëgg interview ak yow kon xam nga ni karma taal na ma macha allah hmm? instant bi su ma génnee damay fotow damay fotow ay midi ay ngoon guddi ba su may tëdd suñu kër damay fotow waaw te karma fi mu ma yóbbu man loolu dafa dafa kawe sama njotu daal. parce que euh, damaa damaa bett aussi damaa bett maanaam rumeur bi mu am nii ak euh, Sénégal yi ni ma bëggee àddina ni ñu ma bëggee euh, ni ñu waxee monde entier ci français maanaam waaw monde entier la déedéet am na nu ñuy waxee naan Selbé interna waa international laa ba a wax ok man soo liñ koy saraxule yi ñoo ma tuddee Selbé international dama àndoon ak si soxo xabut sawda mu yóbbu ma. publicité bàyyi bàyyi say yaa ngi publicité moom ni ma yóbboo. déedéet publicité wu ma. déglu ma rek maanaam moom publicité ma ndax kooku su ma nee publicité moom day teg xaas bi tàll ci table bi ndax macha allah moom ma yóbbu Mourtani bi ma yóbbu Mourtani bi ma yóbbu Mourtani hmm, ay déglu ma fi <laughs> bi ma yóbbu Mourtani waa su mu amoon mu amoon festival Solinke man musuma xam ni. nii la mel ci àddina du ma ne Sénégal de àddina solinke bëgg ma murtaniyee yi ñëpp bëgg ma kon maa ngi gërëm waa Marodi mas Ndour yow mi nga xam ne yaa ma Marodi yàlla na yàlla defal jàmm yàlla na yàlla yokk si waaye di gërëm kenn ci man muy El réalisateur euh, Karma. kooku dama bëgg ba nga xamante ni même su ma amul séquence sax di ma woo na ma eh, Selbé ñëwal nga dugg fii wala ñëwal nga dugg fii kon Karma li ma apporté dafa bari apporté ma dara tey moo tax tey ñu jël ma ci tournage boo xamante tournage bu rëy la ci laa yendu nekk ca clip ba nu mu tudd borom clip bi Ngaaka Blindé xam nga tey Ngaaka kuy bokk ci ay clipam doo nekk como kon lépp Karma moo ko waral série Karma moo ko waral may kontaan rek di am mbég. Ah, kon bu ma jooy. ba ci kanam kon noppi naa kon donc en tout cas daal dëgg yàlla maa ngi gërëm ñëpp dëgg yàlla parce que tamit euh, sénégalais yi àddina ñoom laay waxal sagal ngeen ma de sagal ngeen ma jàppale ngeen ma tey su ma demee ba série Karma fu ñu toogee semaine di woo ma ne ma kaay tourné yéen yéen a tax yéen a ma dooleel. yéen a may yéen ay message yi commenté naan ana Selbé yéen a yokk sama salaire yéen a tax tey waa di defal ma beneen contrat bu bokk ak contrat bi ma nekkoon kon yéen laay delloo njukkal bi yéen laay delloo mbégte mi ma am kontaan naa ci yéen. ñoo la gën a kontaan ndaxte dafay neex parfois nga seetaan euh, benn benn benn télé réalité wala nga seetaan benn film nga reetaan parce que dëkk bi nit ñi dañu stressé wu dafay baax parfois nga seetaan yenn vidéo yoo xam ne da ngay reetaan fàtte ne sa ce li nga xam ne moo la traversé tout tey ba tey ci karma boobu balaa ñu cee génn euh, ban séquence moo la gën a marqué ci tournage bi moo xam ne métti woon na wala doonoon na loo xam ne dafa émotionnel en taw si aussi côté acteurs yi kan nga ci gën a nekkanteel gars yi nga xam ne ay complice ngeen off tournage da ngeen di déggante di joxante nouvelle. ok man nag ndeysaan waa waa série Karma ñëpp mu bëgg ñëpp mu bëgg des fois du ma ci woo kenn sama ñoo ñoo may woo comme ni ko El waxee keroog ci sama anniversaire bi mu ne Selbé bu ñëwul. Euh, fii day wéet te bu ñëwee képp amoon stress day jeex maanaam ñoom dañ ma bëgg ba surtout que su may tourné sama séquence ñoom ku tëddoon sa biir nii dangay génn pour ñëw teemu seede kii seetaan sama sama kii li may tourné jour boobu sama séquence bi kon ñoom ñëpp samay xarit lañ ñoom ñëpp damay déggante ak ñoom amul kii amul kaa ñoom ñëpp ñoo nekk même pied d'égalité ci man maa dégg français même pied d'égalité Malika waaw sama xarit la nag kooku moom sama xarit la moom Malika sonal na ma mais sama gaayin la waaw sama gaayin la ñu baax ay xale yu yaru ay xale yu anodable ma ne ay xale yu amodable ah adorable ñoom ñoo fa nekk maam Ndiaye ku gën a dégg français. maam Ndiaye maa ko <laughs> maam Ndiaye damay moroomam maam Ndiaye man ak moom ñoo bokkoon classe. maam Ndiaye sax waaw mais nag moom bi mu bàyyee man damaa continuer. <laughs> école maam yële ba daan kii lañ jàngee man ak moom. Hmm? waaw man ak moom ñoo bokkoon benn classe mais sama ban man xam sama ban man maa ne ko ci ginnaaw maam Ndiaye mais moom comme moom maanaam Ndiaye mi da maanaam da ko yàgg bëgg. maam Ndiaye da jël suñuy kaye ñun ak suñuy big génn da ngay wësa bi ko si maam Ndiaye génn ko dem jaayi ko. moo tax sàmm muy dund nii da ko yàgg dund. maam moom lii da ko yàgg dund Ndiaye mii <laughs> ci deretam la ne moo tax mbay jàng léegi moom bu ko dàqee ci wàllum Ndiaye man ci laa ñëw toog ci kanamam. man tamit ma nekk ci kanamu maam Ndiaye remplacer maam Ndiaye jël place am comprendre nga que bu ñu daan concours bu ñu daan nekk di di kii compo man dama daan photocopier di ko envoyé Mame Ndiaye pour bu demee wane ni lii moo ko bind di tirise di tirise lii Mame Ndiaye dinañ dem ba këram foog mu tontu la de li ngay wax ni yaa ngi koy génneel mbootam li may wax nii xam na ko la da doon tirise man maa daan photocopier man liñ daan bind ma koy jox waaw un boobu mu ne mënu koo bind man mi maa ko tere ndax man su ma bindee xam nga un dafa nuroo bant bu moo comprendre nga boo bindee nii xam na ngay wàcc nii defaat bant bu ak su ko defee moom moo tax ma rawee boobu comprendre nga man de xuma looy rii <laughs> avec Selbé moom <laughs> foog nga reetaan <laughs> munuñ ci dara moo classe dafa wéet nag après place bi ñu ko dàqee man laa mujjee ma tamit comme sama xarit la jël naa place am te mu xaw a naqari deret ma génne mooy kojog yooyu ma mujjee bàyyi maam yaay tax ma bàyyi. ma doon dóor ba naqari dara kii dafa weex dafa dafa am doole dana nii. maam jaay rek dégg mu naan ku ma yàq noonu la daan def di ba mu <coughs> yaay dënd ba wuy ah, dënd ba waay <laughs> sarab yooyu ma lay toppandoo uy oh, sama point de cœur bi xool fan lay ne fii tas na tas kër bi fii lay ne tas na tas na Mame Ndiaye yaa ngi TV comme ni ngeen ko gisee rek Selbé la dalal tey ci face ak facette <laughs> numéro 3 facette bi moom gis nañ ko xam nañ ko wante ñu jàll ci deusième partie bi rek mooy li nga xam ne mooy confidence foofu nag la ñuy wone carrément li nga xam ne xamuñu Selbé. man xam ne damaa tudd Arko Guédiawaye mais saa yi maa ngi Arko Pikine ci Leyti Fall maa ngi koy nuyu de passage Leyti suñu mettre en bu baax ku bëgg nit ku bëgg ay élément kuy toppatoo ay élément kuy lijjanti ay élément koo xamante ni gàcce lay daw ku bëgg ay élément am maa ngi lay nuyu maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant rëccuma lu ma ñëwee ci sa arco boobu maa ngi gërëm waa Pikine ñëpp arco Pikine ñëpp maa ngi leen di gërëm mais xam naa ni sama parcours kii sama parcours maanaam méttiitu kii man bëgguma ko kone di ko wax su ma ko dee wax damay jooy. Selby xam nga lu tax dañuy bëgg nit ñi xam la tey euh, bi ñu commencé émission bi ñun ñëpp reetaan nañ ñëpp xamee nañ la facette boobu mais dafay neex tey nga ñëw xamal Selby mooy kan euh, Selby actrice la selbe maquilleuse la mais Selby aussi battante la naa fu ne dama daan damaa nekkoon complexe Eva di jaayee Petersen boisson yooyu ñuy def ci paan yi te date bi di waaj jeex yooyu lañ daan jaay su ko defee boo ko jëndee profito ñu wàññi la ko bu ñu war a jaayee 5000 jaay la ko mil nga jënd sa galaas toj teg jaay su ma jaayee ba kii ba ngoon ma wàcc dem gont gont complexe Eva salon ngéwal salon ngéwal bu Géejawaay fa laa nekkoon 2000 2004 fa laa nekkoon fa laa jàngee métier. jóge fa bëgg diplôme dem complexe Eva di jaayi Petersen dem complexe Eva di jàngi su ma demee jaay boisson bu jeexee ñu ramasse ma ci boisson bi ma teg paan bi dem jënd ay dàll jóg ko foofu ci kii ci rond point eh, kii Petersen bi noonu ñëpp xam nañ ma ñi may suivre xam nañ ni loolu laa doon liggéey événement école bu jotee ma dem jënd ay livres di wër di jaay masse ambila mu jig ma jaay ataaya salle de vente su ma la limalee li may jaay fii yëpp émission bi maanaam yow ci njaay lay yem ma li ma la expliquer nii xam naa doo ko comprendre mais li may waxal nii ñoom comprendre nañ ko ci comprendre tubaab nga waaye du du <laughs> may jaay café salle de vente di jaay kafe di jaay di jaay di jaay ataaya ngoon su ma jaayee ba ba bëccëg ma daw dem gont complexe Eva ndax boobu diplôme laa bëggoon te sama yaay dafa néew doole ma ne ma néew doole aw ma ku ma jàppale comme jàngu ma sama jàng sori ma nag maam jaayee yem ma ne naa wut métier loolu ma dugal ci métier coiffure may jaay di dimbali sama bopp di jaay dimbali sama bopp mujj gi ataaya bi ma bàyyi njaay ataaya dugg dugg ci njaayam fruit di jëndee sànniñeer yi dox ba riponti dox ba Blaise jaañ wër fu ne at fu ne ci ndakaaru di jaay fruit Sandaga xam nañ li may wax comprendre nga man dama jaay jaay jaay jaay jaay jaay lu ne jaay naa ko lu ne jaay naa ko sama àddina ngir bëgg am métier boo xam ne ëllëg naa ci jariñ jariñ sama yaay ma jógati foofu ñu yaakaar ne pare naa pare wu ma de may liggéey fi usine jën bi nekk Padois mais usine jën waa ubbi salon bi doxul ndax dama doon liggéey benn salon bu nekk Medina léegi maanaam nit ki boo nekkee di liggéeyal jàmbur liggéeyal sa bopp du gën ma ràññee da ba am sama salon salon bi di metti waaye damay dem fanaan usine jën bi nekk Padois ñu may fay fanaan bi 2500 chaque semaine lañ lay fay chaque vendredi lañ lay fay. su ma fanaane ba bër set su ma xëyee konni sama salon dem liggéey yi su ma demee liñ ma fay noonu moom laay boole dajale ko bu yeddee ma fayee ko lu ndax boobu salon mi ngi maa ngi doog demaare te dafa metti woon ma continué ci ba tey li ma nekk asek naa jóge fa ñëw nekk caaro yi yor sama salon ba tey maa ngi jóge daan ba tey aw ma xaas de ba tey maa ngi souffrir na leer ba tey maa ngi souffrance bu metti ndax sa maanaam liggéey léegi dëkk bi léegi dafa metti dëkk bi dafa metti góorgóor rek la ci génne ak am jom jël ci guy gi taf ci daqaar ji jël ci buy bi taf ci gerte gi pour nga am dara ba nii nii maa ngi sama salon mais teew damay dóor waar feneen des fois salon bi du génnee paiement bi nga jël la nga liggéey fee boole ko paiement bi taqale ba jusqu'à là nii may wax yow salbe bi yóbbu ma fenn de par exemple ay salbe la star non non yàlla mooy star damay kon ne di liggéey di jaay ba tey lu ma gis lu may jaay dama koy jaay lu ma gis ma liggéey dama koy liggéey awma oto awma kër sama lekk ak sama naan sama yaay ko yor ak samay mag kon ana star bi am na solo am na solo gis nañ ne succès bi yóbbulu la fenn ndax it gëm nga sa bopp te yaa ngi koy ñafe ba tey ci jaay boobu jaay nga lu ne mais parfois Selbé da ngay nekk situation di def mu mel ni yàlla euh, ñu baal ma ci kàddu yi day gëmm ndaxte dina am de jours tellement durs yu métti yoo xam ne da ngay def ay effort yoo xam ne du am résultat mus na laa arrivé. bëri man des fois damay toog ba muy yàgg di wax ak moom maam damay wax moom dina ko yow lan la danga maa fàtte wala am na boo xam dama ne ko man damay naan ndax yow ñii nga may xaalis te ma te nga bind leen ma maam mi damay wax ak moom di foo ne dama naan ko maa ngi ni man sa jaam laa may ma li nga may nii ndax des fois da ngay gis nekk nekk ci benn affaire nekk ci benn lancé pour nga génn ci sax du kii du yomb léegi nga koo xamante ni peut-être xam nga yàlla sax dafa bind nag yow te yemalewul te wërsëg yemul mais des fois da ngay gis koo xamante ni moom daal vite fait day am day am oto am xaas am kër nekk à l'aise yow ngay xëy di dang dangi yow da xëy si des fois cent franc yoo jëndee sax café doo ko am. man nag heureusement sax suñu waa kër dañ may defal kii kii kii nu ñu waxee ndékk bi ñu nekk ci kaw lal bi. petit déjeuner au lit petit déjeuner au lit ñoom dañ ma ko indi sama biir nekk def su ma woon fan laa jëm waaye nag luyewu ma sama kër famille laa nekk moo ma moo ma dimbali waaye suma ma woon dina métti lool ci man dina métti lool ci man maay ngi sama kër famille ñu maanaam sama añ sama reer lépp amul leen lu ma ciy financé mais nag sama dund xaw na difficile daal tuuti mais na sant yàlla yokk daal ma jël. yàlla baax na yàlla dina changer situation nga gën a yokk mais tey sel bi. may may xaalis ay dix mille quinze quinze mille <laughs> des fois may toog ci foire bi des fois nga gis ko ma romb sel bi yaa may bëggal maa ngi en France je suis en France euh, je vis je vis sel bi. toujours je vis mon mon jëkkër il est sourire il est il est il est il est crié ma ne ah attends envoyé daal ma envoyé dix mille wala benn quinze mille lool baax na de ci sa doole koo xam ne dafa dem liggéey xamoo ko xamul may la ñaari junni loolu doo ko ñaanal jamono ju metti ci dama lay ñaanal ak fi réew mi toll ah ah ma jógee ci sama téléphone bii ma am barki démb dañ ma koo may man iPhone kii bi ma yor nu mu toll ci techno bi dafa toj. écran bi mokk ma téye sama téléphone di nag am sama fulla sama fayda xam ne nit ki la nga am rek ngay duggee marché ah madama saa ma saa daal ma koy jëndal mbokkum si soxla comme yow bëggoo yegg ci ki bi waa mbokkum si soxla yaa ngi may dégg mu dem jënd ma ñu sàcc sama téléphone mu dem jënd ma téléphone jox ma ko ah bëri na des fois nga gis ku yëkkati yére may ma ah, sama yére yaa ngi yokk <laughs> démb su ma koo gis invité boo xam ne danga koy indi mu rëccaat daw nga xëccaat indi sel bi bàyyi sa li ngay def yow tamit <laughs> gisaguma ko boo gisoon sa duma la ko wax <laughs> selbe bàyyi say ngay def ñu jàll selbe selbe da nga nekk koo xam ne da bëgg sa yaay selbe danga nekk koo xam ne à chaque fois da dangay def lu ne même sa jaay yi nga liste yëpp c'est juste que pour mettre sa yaay ci très bon condition pour bu mu manqué dara pour pour jàppale ko amour boobu tey da nga màgg yow ak sa yaay kese wala da nga màgg amour boobu c'est normal mais aussi am na lu koy gën a déclencher ok amour boobu ci sama yaay man sama jom ji ma am àndal nii ba ku ma ci gis naw ma wala ku ma séqal liggéey nga naw ma wala milieu bi ma nekk ñu naw ma damay xalaat sama yaay man fu ma nekk may xalaat sama yaay ndax sama yaay ba day jaay sàndaga day jaay ndugg danaan jaay légume di jaay fraise yoroon ay tool fii euh, Fass Mbao ma yeewu ak moom quatre heures du samay rakk nekk ay tuut tànk yu ndaw ma leen di gérer li sama njàng demul fenn loolu moo tax su ma ànd ak samay quatre heures du matin ñu jaar marché Kasoor ndugg ñu dem Sandaga suñ demee man maay yenu lu diis li ndugg yi man peñe moo tax ma gàtt peñe yi ma doon yenu moo tax ma gàtt parce que koo xam ne da ngay jël ay trent cinq kilos ndugum caaxaanu ma de cinq kilos ay légumes te du koy ëpp des fois parce que des fois sama yaay dama doon naan est-ce yaay yaa ma jur man sama yaay dama doon toog ba yaay di ko laaj ba xam yow yaa ma jur ndax peñe bi maanaam par mbuus yi par 2 kilos lay doon 1 kilo 2 kilo 1 kilo 2 bu paree yan ma bi. ma dem ak peñe bi ànd ak moom ñuy wër ndakaaru njaay yëpp ba peñe bi jeex mu jox ma xaalis ma jóge foofu midi ñëw dem masa caaro yi ndugg dem toggali samay rakk lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy añee te su ma jógee ci añ ba damay ëlbatikuwaat demaan masa caaro yi li sama yaay légume bu muy jaayee suba samay nekk femme battante nekk yaay joo xam ne référence la nekk yaay joo xam dafa am jom yaay ju am fulla yaay ju bëgg njaboot yaay ju yërëm doomam ma ji sama yaay ni mu sonnee sonn ko ci ay njabootam gis sama yaay ni mu nangoo liggéey ma aw samay tànk yaay nekk ci nekk ci liggéey boobu nekk ci liggéey boobu nekk ci liggéey boobu ba yàlla dogal ma nekk ma ma nekk magum jëmm gis nga dañ waajur bu ne référence la ñun jigéen ñi dañu xool ci suñu yaay yi xool ci sa yaay rek doo def erreur kuy xoos sa yaay di nga am jom man sama yaay ma yokk jom tey na ma ko yàlla tey su ma demoon bay xalaat lu ñaaw ëllëg su ma gëstoo xalaat sama yaay rek duma ko def. lan la mës wax ci sa aar loo xam ne eh, saa su ne danga koy sàmm di ànd ak moom di dem ndaxte it wax nga ne dem nga répétition ñu door la tëj seen kër te ba tey eh, mbàppat nga vingt waaw sama yaay moom dafa ragal gàcce. ñun ndeysaan doom yëpp mu ngi leen may ñii quinze 15 ans 14 ans dafa ragal gàcce moom waa kër sañ son yëpp la man suñuy famille man maa ci tën yi maa ci mel nii ma mel nii di ko popper di sol tubay samay duñu sol dañuy muuru ay lañ samay mag yu góor lañ kon nii ma ci mel nii peut-être man maa nekk seen panam ak seen biraan am na ci yenn famille yoo xam ne sax samay suñu ñi nekk tubaa am na ci ñoo xam ne sax considéré wuñu ma ndax métier bi ma nekk mais bi ma demee sama yaay xam nga rek yaay ak doom ma ne expliqué ko yaay li dama ko bëgg ñaanal ma mais gëm naa ni jour bi nga xamante ni la toog xolam sedd ci man mu mu ne ma gis naa ni dóor naa la tëj naa la ci nekk pour nga bàyyi lii ngay def ndax lii bokkut ak yow li nga doon waaye bis ni ki tey dama lay bàyyi nga def ko dootuma la dóor dama lay ñaanal li nga ci bëgg yàlla la ko yàlla defal man ne ko amin daal di dem dama dem répétition rek xëy suba ñun ma dangay ngay tourné ab bilaal ci la sama salaire nag commencé ci ab bilaal moo tax sama yaay duma lekk dara bàyyi ko xalaatuma ko ci àddina sama salaire abu bilaal bi ñu ma ko fayee donte ni bari na jamono yooyu bariwul ci jamono yii ndax su ma comparé ñaar day am différence noonu laa ko jële ñëw jox ko ne ko yaay jëla yaa ko moom mun ma jël ma ko am naa lu bëri yàlla xam na ni sëriñ Bamba laa lay waatal lekk ma ci cent franc dama ko nekk am naa mun ma noonu jël ma ne ko yaay am naa ndeysaan mu ñaanal ma ma ma continuer sama liggéey boobaak léegi moom mi ngi ciy déglu ko naqari mais moom mi ngi muñ mais teew chaque jour rek man maa ngi koy xamal fi may nekk su ma nekkee tournage comme tournage des fois dañuy fanaan lu ñuy ëpp xam rek aar bi dafa metti da ngay guddee di ci di dox yenn heures yi ñu ngay dégg baat bu nekk fu ma nekk waaye yaay xoolal maa ngi fii di ko appel vidéo pour xelam daal ndax yaay yaay li mën ci doom kenn mënu ko du bàyyi du kenn moo tax man su may xalaat des fois su ma gisee nii ay nii man par exemple su ma gisee koo xam ne yaayam dafa wàññeeku sama bopp laay xalaat ndax guddi ma nekk nii sama damay taxaw ci lu bari damay damay soutenir ci lu bari sama yaay damay ñaanal fu ma toll barki dem moo ci mujj li ma jógee muritani ak jour anniversaire am ndeysaan man su may xool sama yaay leneen laay leneen maanaam man bët bi may xool sama yaay dafa kawe ci man dafa kawe lool lool lool waaw li tax may jooy nag maanaam ñi fi seen yaay nekkul laay jooyal ñi fi seen yaay nekkul ndax ñàkk yaay dafa metti ndax des fois su ma gisee ku koo xam ne sa yaay dafa génn àddina sama bopp rek laay xalaat sama bopp rek laay xalaat moom su ma gisee mu jeex sama ne ko yaay da nga jeex xanaa doo lekk doo nii après mun ma ah, damay jëm mag. ba léegi nii day demal boppam fu nekk day voyage day dem day dem euh, fële day dem euh, fi ñu wutee cuub yi Mali def fa six mois jëna boppam jasneer ñëwal kiyal cuubal boppam ñibbisi jóge fa dem Bénin des fois mu dem Mauritanie def fa deux jours mu nekk yaay ju jàmbaar te mag la pourtant mënoon na toog man tamit may sacrifier sama vie pour satisfaire sama yaay pour sama yaay mën a bàyyi coono yooyu muy daj daj daj daj daj daj may may góorgóoru daal pour aw ma mais may góorgóor li may am rek di ko di ko muy jooy muy jooy euh, début émission bi pour jooy patante nga ku bëgg sa yaay nga tey it comme ni ma koy waxee rek waajur bu gàllaacu doom la tey say yaay bu la ñaanalee doo gis lu la jaaxal doo gis lu la jommal boo nekkee situation dafay mel ni ange gardien lañ la yónnee tellement que nit ñi dañ lay taxaw wala it mu ngi noonu buy jooy ndaxte it émission bi dernière partie bi rek moo ci des xanaa ñu jël ki nga xam ne mooy manager mu ñëw defal ñu quelque confidence ci ki nga xam ne mooy Selbé ndaxte ñoom ñaar aussi yàgg nañ di liggéey yombul nga bokk ci yenn famille di def métier bi nga xam ne mooy acteur. tey li ma nekk nii di guddee di ñëw di guddee tey satisfaction bi ma ci am sama yaay la ndax ndeysaan su ma guddee sax moom rek laay xalaat ndax damay défendre ci lu bari damay jàppale ci lu bari su ma guddee ñëw du nelaw il faut ma dalal xelam di ko appel vidéo di xool yaay maa ngi fii yaay maa ngi fii moo tax kenn suñu yaay nañ leen fonk suñu yaay yi nañ leen fonk suñu yaay ñun ñi nga xam ne suñu yaay ñu ngi dundu nañ ci jaamu yàlla ñi nga xamante ni dañu réeroo ak seen yaay yi tas parce que man du ma ne kenn dafa jël yaayam di ko def ma jàpp dañu réer rek may ñaan ñi nga xam dañu réer ak seen waajur ñu delloo si seen xel xam ne yaay du moroom yaay dafa foor yaay rek mooy nekk mooy nekk doom doom rek ay nekk ci ay problème yaay fekk ko fa ak problème mu mën a doon moom rek moo ko nangoo jur moom rek moo nangoo jur bu ñëpp sànni yaay mooy téye ba nii nii nii nii nii nii maa ngi tourné de dëgg yàlla ñëpp ñëw salbe salbe salbe mais mais sant yàlla lépp moom la daal fi yàlla bàyyi ba nga ko yóbbu màkka yal na ko fi yàlla bàyyi ba mu gis ay sëtaati sëtaatam incha allah ñu jàll rek ci nga xam ne mooy ménagère am parce que suñu invité instant bi wax waxloon naa ko ba mu jooy et c'était pas le but nga def témoignage rek ci moom parce que yàgg ngeen di liggéey te wax nga ma am mode off c'est une battante te lim fi liste yëpp confirmé na ne euh, woman bi nga xam ne la elle se bat pour am indépendance financière elle se bat pour mu am liberté elle se bat pour am impact ci nga xam ne mooy société bi pas pour tendre la main pour wane ne moom jigéen la wante jigéen boo xam ne la day takk li nga xam ne mooy sëram tey jigéen mën naa takk mën naa mën naa takk sër mën naa takk tubéy waaw maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa Sénégal di nuyu yéen ñi fi fekk ñëw tey defal ñu émission bi nii di wax ni tey ji ni boo bëggee ma def témoignage ci Ndeye Amy daf may neex loolu parce que waaw Selbé la ko ñëpp xamee mais turam Ndeye Amy Diop la euh, may ku ko fonk nag boo gisee ma koy ma koy manager nekk manager am c'est parce que c'est une battante fonk li muy def fonk waajuram tey li ko jooyloo nii ça veut dire que laal nga ko fu sore sore parce que dafa bëgg yaayam tey aussi lii muy def yaayam ñaanal ko ci loolu loolu loolu loolu loolu muy jigéen ju mën góor lépp lu mu def rek njaboot a tax ma mu def ko du yaayam kese day daw pour ay frère day daw pour ay sœur day daw pour ay jabaru frère looloo gën a tax man ma naw ko ku ko naw laa te man mii daf may faj man dama koy manager waaye daf may faj dama koy reetaanloo ba ma tëdd si suuf tukkuree. non kii daf may rey laa la wax xoolal man parfois dañuy dekk si benn tournage wala dara ma xool ko mais damay rey ba xalangu ci suuf parce que euh, li muy def daf ko mën dafa naturel si moom. dafa naturel amul léegi nii def nañu benn euh, tournage yu mais man si boppam dama ree ba ñu ne ma noppi parce que moom daf may faj parce que li muy def mën na ko loolu loolu loolu loolu daf ko tarbiyu di ko def yàlla jàppale ko ci ba mu yegg si fii tey mu yegg si te mën na ci am lu nekk nag mën na ci am lu nekk parce que c'est une femme battante ba pare am lu mu jombale boppam c'est très important loolu foog nit ñi xam ko am na lu mu jombale boppam keroog téléphone am dafa yàqu ma ne ko yow nga am lu day sa fan si yi nga am yëpp te munoo am iPhone mu ne ma damaa rusa ñaan loolu gor moo koy def gor rek mooy rusa ñaan te moom dafa rusa ñaan man de sama référence la wax dëgg yàlla sama référence la waaw damay roy ci moom noo waxee sa clip <laughs> <laughs> man nag problème mooy lu ma def fàtte naa ko lanati la woon hmm? ah ci ci tiktok bi ah mooy bi may fecc noonu man la dukkure ankay du ma fii ok <laughs> vidéo boobu wax nga dëgg xam ne di ko moom tamit sama xarit la ndeysaan moom it mu yàgg ci aar lool waaw ah, waaye gis nga yàlla moom suñu borom buy ñëw day ñëw ak ay mbiram waaw ah, mais sant rek sant rek. internaute TV ak kawte comme niñ leen ko waxee rek Selbé la ñu dalal tey fii ci émission face ak facette ñu jàll rek ci dernière partie bi nga xam ne moo des jooy yi nga jooy nag bëgguma ko woon nag sama xarit bi ah yow tamit nag ñu jàll ci question quiz yi fii nag amul tricher nee nga woon yow ak Mame Ndiaye da doon tricher. mais yow tamit question yi amul tricher Selbé da ngay da ngay one rek li nga xam ne cinq question la bëriwul nga nga tontu ko rek euh, ñu daal di jàll euh, ci nga xam ne <clears throat> mooy leneen tey Selbé lan moo nekk plat préféré préféré bi mu gën a bëgg nga xam buñ ko toggee moom day kontaan wala it da koy laajte pour ñu toggal ko ban la ñaar laay xool benn maafe ak yaasa nekkul da nga mën a togg moo tax yaasa ak ceebu yàpp jigéen yi mënul togg yëpp moom lañ bëgg mbaa man togg rek laay def euh, aéroport bu njëkk bii nii restaurant bu doon naa fa liggéey ba ñu yëkkatee lañu yóbbu la ñu yóbbu teeru ba ba ñu yëkkatee la ñu yóbbu ba togg rek laay def ak nopp li may wax nii kër gi mënul say géej waaye xam nañ ci dara suñu waa kër xam nañ ci dara duma toggantu mais nag plat ñaari plat yooyu sama plat la dama ko bëgg. Mhm. tey Selbé lan moo koy définir nit koo xam ne boo ko gisee rek day reetaan wala nit koo xam ne boo ko gisee day def grimace wala ban genre nit la. <laughs> comme moo définir mooy lan. comme may ràññalee mhm. nii. nii nga ma gisee nii. reetaan kaf foore loolu lañ may ràññee Selbé kenn xamu ko ci histoire kenn xamu ko ci mer. ci liñ may xam mooy jàmm salaam bëggee xàppi ci loolu ma ñëpp ràññee waaw fu ma nekk du ma bëgg stress am fu du ma bëgg dara am fa loolu mooy sama kii waaw. Mhm. Selbé nga dem nga Mauritanie wax nga ko def nga tournée ak Absatou du ma yegg ci tour bi xam nga fi may waxee. jàllale nga ko si soxo si Sissoko voilà léegi tey Selbé ban dëkk la nga xam ne bëgg na faa dem nga xam ne chaque jour danaa ne lii su ma amoon billet bi tey tey tey tey damay dem par exemple comme man <clears throat> dama bëgg dem Màkka bëgg naa ko torop malgré que jeune naa sama yaay yóbbu Màkka mhm. ma yàlla bu mu dem Màkka léegi mm, question fàtt naa ko loo waaw man nag. waaw man nag ay at ci ginnaaw maanaam bëgguma woon tukki ndax sama yaay mosu woon bëgg. wax mu ne jigéen day toog ci peggu ndeyam tukki nangam nangam nangam nangam mais bi ma xoolee ni maanaam génn dafa baax dama bëgg génn waaw parce que sama génn génn nag Gambie layam ak Mauritanie génn gu ma Sénégal génn gu ma Sénégal mais instant bi ma wax ak yow nii wax dëgg yàlla bu dëgg dee dëgg rek génn rek laa bëgg. mais amaguma peut-être buntu yi am naa destination de buntu laa amagul xaas bi lay génneeg maanaam yoon bi lay bi ngay jaar ak yooyu xam nga dañ ñaan ay invitation ngay am nga bëgg a dem Espagne nga dem bëgg a dem France wala nga dégg bëgg dem Maroc xam nga Maroc sa graaw ndax moom da ngay amul visa amul dara da nga dem dagg ticket mais da nga bëgg dem Dubaï bëgg a dem yooyu il faut nga am blanc blanc rond xaw ma blanc rond lañ koy il faut nga am ko mais su ma amee dama ko exploité. su ma amee damay dem man kay instant yi ku ma yóbbu ma dem waa damaa bëgg jënd kër te xam naa Sénégal nii mu fiy liggéeyee nii loolu liggéey lekk doo am kër de ak oto <laughs> peut-être boo génnee dem tu def tuuti benn immigré bu ndaw comme man def naa salon nga def tuuti benn kii maanaam doo def immigré quoi mais nga dem am loo liggéey tuuti dawaa indi sa dëkk comprendre nga nga def benn business bu ndaw da ciy baax daal da ciy baax te du la yàq sa tournage du la yàq sa dara loolu moom bëgg naa ko moom mais moyen bi moo fi nekkagul. ñu jàll ci avant dernière question bi ban ban histoire boo xam ne wala événement boo xam ne yow yaa ko def boo toogee xalaat ko rek yow da reetaan benn anecdote boo xam ne yow boo toogee rek xalaat ni lii man maa ko defoon rek reetaan da lay jàpp. benn anecdote loo xamante ni lii man maa ko def ci programme wala ngénte wala dara. Hmm. lan la lan la lan laay xalaat bay reetaan fat kii Fatma Mbuub Fatma Mbuub dañu bokkoon tournage <laughs> tournage bi <laughs> <laughs> mooy sër bi ñaan ngooxi ngoox léegi Fatma xam na man sama ti li may joué man duma ma tricher tey su ma la woon mbéj dama lay mbéj waaw man laa mel non man eh saf bi lijjantuwuma parce que Cheikh Mbacke bi ma jàng caat loolu la ma wax moom laa fi dooroon arrêt xam nga dama jànkraate dégg nga bi mu naan ma dóor ma man Sainte Noire laa Cheikh Fall moo ma jàngal maa ngi jàngee mairie Géejawaay bu postu Thiaroye balaa nekk Esat Maris Ndiaye bu ko calculé 2006 amoon na benn ndaama bu doon dóor ay jokk sukki ooy di dugg di génn man la woon ay empreinte lañ ma jëlal ku ma dóor nga kawte ñu yóbbu ma police ñu ne ma léegi police na ma yow dootoo laalati kenn Cheikh Mbacke dañuy tourné man ak moom loolu tamit séquence boobu lu ma marqué la dañuy tourné ma am fii taab Cheikh nee na moom moo ma jàngal théâtre yow jàng nit théâtre tax nga naa nit ki dóor ma naan bul tirise dooral bul simile simile amul simile ma ne ko amul simile ma ne ko am problème Cheikh Mbacke dugg sama courant bi loolu maa ngi koy dagg sa di ko dugg sama TikTok courant bi seer na nangam wax wax wax wax Cheikh Mbacke ma ne ko yow dimbali ma yow lan la affaire yi ah man nga yuuxu ah li nga naan da ngaa jàng karaté moo tax ngay nangam nangam nda tey rek ma tey laay dagg sa rek ci laay sëggee rek may ko taasoo si gën may ko jàkk su koy taf mu xam. Cheikh Mbacke daan fa tey xam ñu coupé ko defar ko ñu ko naa dem ci Fatma bu Fatma dañuy tourné mu sañse xam nga ñoom day saan bu ñu sañsee duñ bëgg ku leen kii te man dangay sañse ma lay kii naa ngi sañse léegi mu ne dama lay dox dama lay dox mooy bi mu bi mu jë bi nekkee dabara abu bilaal dama lay dox ngay kii ma dox la ma ne ah danga may dóor dóor ma mu léegi moom ci biir séquence bi mi ngi naan euh, kii euh, tante Aline nday ami wax ci su may dóor mu kii kii mu dóor ma nànk dof la waxal ak moom nag ma ne ko non du ma la dóor dama lay raay rek mu naan dama lay dox dama lay lay dox ma ne ko ah danga may dóor ayca ñu ñu ma léegi man maa war a dóor ba ma nekkoon far rek ma ne woy sama ndey xulóog man di xulóog man ci tournage bi xulóo bu métti loolu ah dama koy ree di ko ree ba su ma xalaataatee <laughs> dama koy ree mu xulóog man bëgg a gedd tournage bi bu ma dooraat bu ma door ma ne ko maa la door Fatma man maa la door yow bu ñu tourné waatee mun naa man dafaat la yow lu gën a garaaw loolu mais loolu dama koy ree moo bu Seex Mbàkke loolu moom dama ko fàtte loolu moom duma ko mës a ak leen tamit du ma ko fàtte man ak Mbaye Koutia dañoon xeex biir <laughs> léegi xeex bi xam ne TFM suuf terrain la léegi ñun ñu ngi xeex waaye bu ñuy xeex ñun lu ñu yor ba wàcc suuf doo ko xeex mbay ko caa dépassé na ma may yéeg ci kaw ñu war a wàcc suuf terrain ñu taxaw kii ci escalier yi léegi comme man gis naa góoñi di ñëw rek rek mu kii dem attaque bu dul loolu sax man naroon naa koo dóor moom bu yàgg far ko caa far yàlla ñuy kii rek mbay daan may kii rek ma dóor ko arrêt rek sonk ñu përee ma nag ñu gis bërëng bërëng bërëng bërëng <laughs> gis nañu ñun bi ñu wàcc suuf kenn kenn arrangé wu ñoo arrangé suñu bopp dañoo sonn bërëng bi nañ <laughs> doon bërëng ko ci skile yi kenn arrangé wu ñu ku ne da ngaa jéem a taxaw di wut xool foo dagg foo daggul buubu ndu ñëw di wax ñun ñun boobu xool arrangé nañ suñu boobu da ku ne dem toog loolu tamit lu ma def reetaan la <laughs> sama xeex ba mbay ko caa moo tax bu ñu jubee ma ko bu ñuy xeex dañoo waroon bàyyi bàcc suuf ñu xeex mais kaw escalier yi suuf terrain ngay xeex di jóge ci suuf di dugg ci biir loolu c'est grave <laughs> ñu jàll ci dernière rek dernière question bi tey Selbé bu amee li nga xam ne mooy secret boo xam ne waru koo wax kenn kan la yaakaar ne mun na ko koo confier te du ko yoole. man nag dañ maa yàgg a yoole man avant may nànd ni secret dañ koy téye yàggul de maanaam bi moo yàggul. barki yonent bi man pour man xool sama amee téeméer ñu ne la yow xoolal nangam ak nangam naa ma naa wuy ma waa léegi loo ci xam naa ma nangam loo ci xam jóge ci kii ne ko yow xool sama problème bi démb ay waay nangam sangam léegi après léegi may wax noonu moom day jugaat après ma diggaat ko ñu dem nettaliwaat ko keneen léegi man bi ma yeewoo su ma tee ci ay un yaakaar naa un an te man instant maa ngi sama at fi cool yi euh, mënu nu mu bari na waaye at bi laay doog a yeewu un an bi ma yeewoo la ci at la tool bi ma bàyyi wax ni sama secret ci at la toll bi ma bàyyi wax ni samay problème ci at la toll ndax jamono bi damaa jàpp ne moo tollu foofu ndax dama gis ne comme jamono dafa changé tamal maa ngi doon dundu ay dund yu ñu yàgg te dundu yàgg yooyu dafa amatul <laughs> comme dund yàgg amatul maanaam wax si ni secret mu teel ko amatul wax sa biir nit mu teel ko amatul ma ne xaaral ma dund dund dund 2013 2022 2022 22 bi ah waa daaw la daaw laay doog a nànd. ci nga nànd. laa nànd léegi nag 2023 bi ñëw la gën a yokk ci xar mi kon nag damaa gën a nànd léegi. Mhm, parce que dama daan am ay surprise ci ay nit ci ay nit mais teewul man damay jàpp man su ma jàppee duma ma gaaw a bàyyi man su ma ànd nit du ma bàyyi su ma jàppee duma bàyyi man noonu la ma yàlla bindee mais nag yeewu naa ci 2022 bi ak ci 2023 donte samay at bëri na waaye nag maa ngi doog a yeewu. lu ne def nañ ma ko waaye maa ngi doog a waaye yeew naa te dootuma nelawati jamais dormi regard rek comme yéen sénégalais foofu ngeen toll yéen loolu leen xamal nit ki wax ko loolu xamal nit ki wax ko di inventé ah bu leen nit ki nettali ne la dama am feebaru biir buy daw nga dem ne ko moom nee na biir bi daw bi démb ba mu ko yi dafa dugg kër gi ba mu dee amul ndox mu jaar kër gi loolu baaxul nañ change suñu jukko yi nañ leen change suñ jukko yi xam ne kulli nafsin saayixatil mawti bakkan bu ñëm dul day ñëm dee te dégg ji ñëw na yàlla suñu borom ngi ni taxañ suufam si mu ngi ci mujjug jamono dëkk yi di yëngu ni mujjug jamono la ah nañ leen changé bàyyi nettalante bi bàyyi iñaanante bi bàyyi soxorante soxorante amul njëriñ surtout maa ñun su suñu vie vie vie ñu dund nii vi kii vi vie kii waaye soo bis ak kii am na beneen nu ñuy wax kii kii waay média média kii média waay damaa jàng billaahi kii média waaw média laa mel média la ñuy wax de. Ah, yéen yi ah yi ñun nag ay la ñun. ah ñun ay artistes yéen ay média ngeen. de réseaux sociaux laa réseaux sociaux laa bëgg a wax réseaux sociaux. Mhm. réseaux sociaux fi coon nii dafa doy waar. yàqan te bi kon tox suba na saañ Facebook xaw ma ku kii xaw ma ku ko créé tuddati TikTok. mais ah euh, yàqante bi ci TikTok bi bari na Facebook amoon na man dama naan def Facebook problème yi daaw am Instagram Viber Skype yow jamono yooyu foo nekkoon maa la mag daan nga ko def man dama naan Skype Viber benn bët koo kii mu defal la vidéo Viber nga jël benn bët kàmb bi teg maa yàgg ah. Imo Imo wax ke <laughs> may dem Sibère di fay 200 ndeysaan léegi nag jamono yooyu yëpp yu ba yu ñaaw yi amul woon nañu saan suñu jikko yi ngir yàlla gis nga réseaux sociaux yi yàqul kenn de ñoo bëgg a yàqante suñu biir TikTok bii ku ci bëgg baax di nga ci baax ku ci bëgg mel na ne di ko ci mel nañ leen changé nañ leen bàyyi yàqante bi nañ bàyyi nettalante lu ñaaw baaxul nañ bàyyi lu nit xamal nit après boo ko weerul ci TikTok wala nga dem Instagram rek doo nekk ci jàmm nañ bàyyi nañ leen changé la ngeen changé kenn ku ci nekk xoolal li lay jëmale kanam xoolal ni man tey néew du doole laa par exemple man awma kër awma oto ne damay loué dégg nga léegi ci kaw loué boobu yaa ngi indi say xarit di fréquente si biir kër toogoo fi lu jàmbur toogoo fi lu teg sa kër ay appareil caméra surveillance ah surtout maa yéen góor ñi góor ñi bàyyi leen bàññi leen seen jukko yi jigéen ñi ay yaay lañ jigéen yaay la jigéen yaay la trois fois gis ngay jigéen yàllaa ko màggal ñun nag ñoo desee xam suñu bopp mais yàlla lim li mu bind jigéen la ci gën a fonk mais ñun ñoo fonkul suñu bopp mais yéen indi leen seen xel yi ñun bu suñu weeni sëggee comme suñu xel yi suñu ween yi mu sëgg noonu suñu xel yi sëggee comme ni koy mag ñi di waxee yéen ngeen yeew comme yéen amu leen ween bu sëgg ngeen ngeen jàppale ñu ah jigéen bu ñëwee sax bëgg la sax def na ko sul noonu bëgg la kii nga bañ nga ne ko man xaraam mhm, góor Mhm. nanu ko xaraam i laa i ta it looy nattar laa bu jigéen ñëwee ci yow ba dëgg la mu kii nga ne ko i laa mbokk ragalal yàlla ah changé leen góor ñi changé seen comportement jigéen ñaa ngi yàq waaye góor ñi yéen leen yàq de ah yéen leen yàq baax na surtout ma iPhone iPhone moom toj na dëkk lii. ba mu ñëwee ba tey toj na dëkk bi mer hmm, naa trop. iPhone iPhone 21 pro waaye pro pro beneen téléphone bu génn la pro max. ah iPhone la. ah moom moo am pro max. ah 14 pro boo mooy jël ñaata. million. asbuna laa ma nimal wakiilu nimal mawlaa ma nimal nasiiru subhaana rabbil aziim laa ilaaha illallaah alxuraan dama ci am bés bàyyi rek mu sedd ah dana ci am bés ah, jàng nag ah kon dindi ko supprimer ko waaw ah, loolu dindi ko jàng nag man damaa jàng de alifu laa commencé jàng phrase boo xam ne toroxal na ku ne man am naa ci bés bàyyi mu sedd xam naa li ma lay wax lii mooy face facette <laughs> tey. xam nga ni Sénégal fii kenn mënu fee mucc man sama gémmiñ gi yaatu ko sama TikTok ñëpp dañ ma koy wax la ma yàlla bindee samay tuñ ndax dañ liñ may xas. face <laughs> troisième numéro comme ni ngeen ko gisee confidence la relax wante it gis ngeen ki nga xam ne mooy Selbé Amina Karma mm. eh, waxtaan nañoo moom xolam tooy na fii wante def na ay révélation kaf nañ fo nañ reetaan nañ kontaan nañ eh, ñu bàyyi la rek nga nuyoog fans yi jox ak ñoom eh, kii nii benn dernier mot. Mm. Euh, dernier mot bi yow laa koy gërëme parce que yow sonal naa la wax nga ma kañ la ñuy jàkkaarloo noo tudd sax. cànke ndeysaan sa voix booy wax sa yaram day daw yow ni nga waxee man moo tax ma nanguwul la sax interview bi. parce que dafa duus jigéen wax day waaye di wax naan dama ne bugg <laughs> bëggul bëggul lool si jigéen <laughs> léegi ci kaw loolu ma nangu la sa invitation may gërëm sama xarit bii caméraman nu mu tudd bay di ndaw bay di ndaw yow macha allah yàlla na la yàlla defal jàmm li ngay cadre macha allah yàlla na yàlla wéral cër yi yokk xam-xam bi yàlla musal ci cat ak làmmiñ seytaan kenn liggéeyul kenn nit ñi cataleen soxla ak làmmiñ kenn kenn jërëjëf léegi nag fant yi dama leen di woo comme ça daal yére ça va <laughs> déedéet yéen laay waxal de duma ay jaaxante duma ay foo su may génn walla soo yére bu bees cheveux bu bees cheveux bi yàgg na fi joo sànq laa ko peñawaat nii xaw koo defaraat saag bu bees daal bu bees fant yi comme yéen a ma forcé sénégalais yi comme yéen ma forcé waa mbarodi ba ñoom ñu yokk samay séquence ba fi joo mënatuma dox ci rue simplement fu ma toll ko dama war a di sañse kon léegi wax leen ci lii ngeen ma dugal nii ñaari mooy ñi nga xam ne dañoo yor ay oto ay ay oto ku ci am 206 hmm, cent cinq ay remorque mooy oto mbott yooyu oto remorque remorque ma xeeb ma benn man ay ransak yooyu yëpp baal naa leen ko commencé leen ci cent 205 remorque ay 207 dafa foor ndax day jar ay 2 millions yooyu yooyu bëri na dégg nga yéen noo leen noo leen am rek ci xottu oto rek ngeen baaxee ma ko Wally Seck dégg naa moom day may waaye mbaa duñ ma TikTok nit ñi naan day sal bi day ñaan yooyu ah ñu wax ma wax naa wax Wally may ma oto Wally may ma Wally may ma oto yaay sargal ay waay Wally Wally may ma oto oui ma waaye ma sal mi yéen président soxna président mi ma sala wa doo ma woo ah wax dëgg yàlla mayoon nga ma xaalis si foir bi waaye recevoir ma nag recevoir yow moom kër laa lay ñaan man ñaanuma la oto ndax oto bidze la xam nga man su ma amee oto sax naa am ñu ma may gasoil. léegi comprendre da lay may oto. Mariam du ma la dagg <laughs> Mariam da lay jox kër. dañ koy tënk rek. man tënku ma de damay wax. yow yaa yii dama doon neexal de naa ma sel bi ci woow je day damay wax <laughs> pare damay wax de. <laughs> président soxna madame kii soxna madame Faye Sall mu baax mi borom xolu or borom xolu jamaa bi forcé naa keroog barrage foire foto naa ak yow maa ngi la koy waxaat bi may interview ñetti yoon maa ngi lay woo bi yoon ba mu wuyu lootu ma la wooti man Diop laa sant damay guerre ak yow parce que tamit damay mer naa soxna Marème Faye mënu ma laa toppandoo ci Kouthia ñaata at avant ngeen di nekk président ba ni ngeen ko nekkee yàlla na leen yàlla joxaat kii bi kii bi réew mi. troisième dégg nga léegi nag man damaa bëgg kër gi damaa bëgg nga may ma kër njaboot gaag may xaar te dëkk bi mett métti goo xam ne loo liggéey lekk ko pour nga jënd teere sa problème la may may sa kër yee benn rek ma dem fay jàpp ci recevoir ma nag yu ne woon nga ma xaas foir bi may bi dëgg la mais yu woo ma ma waaye waali may ma oto dégg nga cinq rek man baax na man oto cher yi ngay may wax yooyu de ay 205 ay yu oyof daal yu jar ay 500000 yooyu baax na. yow kii nii ku baax ki te mu nekk te mu nekk maire léegi Barthélemy sama xarit la Barthélemy bëgg naa la Barthélemy I love you Barthélemy may ma dégg naa da ngay may ay moto waaw ah yaay madame la maire kon Barthélemy madame la maire ne dina ma indi ci yow dégg su ma ñëwee nga may ma oto dégg nga madame dégg nga Barthélemy <laughs> bu ma wokk naan ma baax na dama dagg bul ma wokk léegi nag sama salon bi ma yor ne ku bëgg a make wala nga bëgg a defaru wala nga bëgg a am bu rafet da nga may woo si si 77 735 14 43. waaw léegi li ngay posé question lan. du publicité de sama eh wax leen nag kii du publicité. sama salon Mina make up complexe Mina make up nga caaro te li jàll la da ngay dagg gis naa nga ko nii <laughs> boo daggee ma dugalaat ko <laughs> eh, eh maa nga tëli jàllo complexe Mina Makeup ku bëgg a gis sal bi li muy liggéey fekk ma Tali Diallo jumaa ja sama numéro téléphone 77 la 735 14 43 numéro Tigo bi 657 21 57 yéen ñi may may yëre tam mën ngeen boobu ñi may may greffage ak ay maquillage ak yooyu. léegi tëj na waaw léegi man dama lay nuyu am nga jëkkër. man amaguma jëkkër. yàlla na yàlla kër bu baax ku yaru nga nag ku baax nga ku encouragé ku encourageable nga. ku ko ku incroyable nga man nag bëgg naa jëkkër de. bëgg mhm. ku may takk tamit nag ma woo ci numéro boobu rek merci beaucoup. nii lay demee saa su ne face ak facette ak euh, ki nga xam ne mooy Selbé Karma ñu jox leen rendez ak yeneen invité incha allah euh, bay di ndaw moo nekkoon ci production bi côté technique euh, ci micro bi jànke maane jërë ngeen jëf.